ca jiitook la mujj ci ay ci niñ ko mën a waxee noonu la asahabatul kiram itam yàlla na yàlla yàlla gërëm daan njëkkantee ka ëpplante ci topp yàlla ak jaamu ko kon dafay jaadu ci julit bi mu xir lool ci farlu ca jamonoy jaamu yàlla yooyu donte jamono yëpp jamono jaamu yàlla waaye da cay rawati yenn jag yenn yenn yenn yenn jamono yi jaamu jago ca loola farlu ci weeru yi di weeru Shaaban rawatina ndax Shaaban dafay dimbale mën farlu ci Shaaban dafay dimbale ci mana a farlu ci weeru koor loolu ca alxaafis ibnu Rajab doon wax ne wax ne inna siyaama chaabana ka tamrini ala siyaami ramadan li alla yadxula fi sawmi ramadana ala mashaqatin wa kulfa bal xad tamarrana ala siyaami waqtaadahu wa wajada bi siyaami chaabana qablahu xalaawata siyam wa laddatahu fa yadxulu fi siyaami ramadan bi quwatin wa nashat ila axiril qawl nee na woor chaaban dafa mel ne ak tàggatu la ci mën a woor ramadan ngir ba buy tàbbi ci ramadan woor ramadan bañ coona ak jafe-jafe ako metit ndax tàggatoon na ci koor ci koor googu ci Shaaban ba ko tàmm kon buy dugg ci koor day koor ci moom tàmm gi ko tàmm nag ci Shaaban ci lay mën a amee E, yëg ci xolam neexiitu koor ak bànneexam ba bi tàbbi ci koor mu tàbbi ci ak cawarte ak kàttan ngir tàmm ga bi nga xam ne Shaaban na kon dafa nekk lu ñu jiital ci Ramadan kon dese yoonal la yoonaleef na ko ci Ramadan ci woor jàng alquran tudd yàlla xeeti jaamu yépp ngir maanaam waajtaay wu ma sëkk wu mën daje ak ramadan bakkanam man caa tàggatoo ca loola ci topp yàlla subhanahu wa weer wi nag làmboo ay ngeneel yu bari borom bi leeral ngeneeli weeru shaaban ak wàccuwaayam ci biir yeneen weer yi bi mu gisee ne ahlu jahiliya ceddo ya dañoo fonkoon lool weeru rajab di ko màggal julit ñi fonk lool weeru ramadan di ko màggal usaama ibn saydin gis yoon saasam moom fonk koor lool ci chaaban moom usaama laaj ko yal ko yàlla gërëm laaj ko bari lim ni bari la ay koor ci chaaban lu ko waral yéen bi tontu ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko daaka shahrun yaghfulu nnaasu anhu bayna rajabin wa ramadan wa huwa shahrun yurfau fihi fihi al ila rabbil alamin fa ahabbu an yurfaa amali wa ana saim ne ko weer la wow kat nit ñi dañ koo sàggane tam ña nekk ci diggante ñaari weer yu màgg muy rajaba rajab ak ramadan waaye mooy weer wi nga xam ne ci lañu ci la ñuy jëf yi di ko yóbbu ci borom bindeef yi maanaam ci la ñuy yée yéegal jëfi jaam yi ci borom bi subhanahu wa taala ma bëgg nag suñuy yëkkati sama jëf fekk ma ma woor kon jagleel gém jagleel moom yoon saaslam weeru chaban koor lu ñu lëkkale la ak yëkkatiku jëf yi jëme ci yàlla subhanahu wa taala kon jëf yi def na ko yëkkati jëm ci yàlla ci weeru Shaaban gannaaw boo xamee ne nag def na ko gaaral suñu doon des ko gaaral jëfi jaam ñi ci altine june ak alxamis june ñaari bis bu ci nekk defna ko gaaral jëfi jaam ñi ko manis naa wax ne kon yëkkatiku jëf yi jëm ci yàlla daan nekk ñetti anam def na yëkkati jëfi bëccëg bi E, yéegal laata jëfi guddi def na yëkkati it jëfi guddi gi mu dem laata bëccëg bi ni ñuy yëkkat ni ñu koy yëkkatee ci ñaari bis yi di altine ak alxamis di ko yëkkati ci weeru Shaaban ci jagle bokk ni li tegtale loolu li Abu Hurayrata solo yàlla ko yàlla gërëm ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne yataaqabuuna fiikum malaikatum bil layli wa malaikatum bin nahar wa yajtamiuuna fi solati al asri wa solati al fajr nee na ay malaaka dañuy awante di rombante malaaka yi jël si jëf guddi gi ak malaaka yi jël si jëf jëf bëccëg dañuy fekkante fii ci takkusaan fajar bu takkusaanee malaaka mi jël malaaka yi jël si jëfi guddi gi ci la ñuy ñëw fekk fi malaaka mi jël si woon jëfi bëccëg mooy ñu tàggoo mu dem su fajaree malaaka mi jël si jëfi bëccëg bi ñëw fekk fi malaaka mi doon jël si jëfi guddi gi mu doon ko ci ñaari waxtu yooyu lañu daje gën a yëkkati ko jëf yooyu jëm ci yàlla subhanahu wa taala ci weeru moo tax mu bëgg kon buy jëf jee dem fekk ko mu nekk ci koor lool di wane kon ngëneelam ndax ak la ci nangook jëf ci borom subhanahu wa taala ni mu nekk itam lu ñu sopp fa yàlla subhanahu wa taala xikmab bari gi mu nag ay kooram ci Shaaban dafay wane di màndargaal dundal waxtu yu yu ñu sàggane yoo xam ne na jaamu ci ak topp ci yàlla ndax li xaybsu nu raja wax ne kuma Niass dafa ne weeru Shaaban nit ñi dañ ko sàggane xam ne ci diggante ñaari weer yu màgg mi achahrul xaraamu di rajab wa chahru siyaami di koor nit ñi na soxla woo ñaari weer yooyu ba moom mujj doon lu ñu sàggane lu bari ci nit ñi jort ne woor rajab moo woor chaban ngir lim nekk chehrul chehrun xaram maanaam lim nekk bokk ci as al ashru hurum te mbir mi wag mbir mi demewul noonu mu am ci chaban nag guddi goo xam ne gu màgg la gu tedd gu am solo lool goo xam ne féete na kaw yeneen guddi yi ci yi ci biir weer wi yi ci yëpp ba solom sax Euh, dañ koy limaale ci ne bokk na ci guddi yi gën ci yenn guddi ci biir at mi ba ci boroom xam-xam yi sax dañ ko tolloo leeg laylatul xadr muy li ñu tuddee nisfu chaaban mooy xaaju weer wi mooy buñ buñ amee fukki fan ak ñeent ba ca ngoon nga xam ba ba dee sedd di fukki juróom guddi googu la ñu tuddee euh, laylatu nisfi Shaaban ay ahadis yu bari rot ci ngëneelam ak solom yu baree bari bari yoo xam dafay junju sopp guñ sopp taxaw guddi googu mooy di ci def ay nawafilul xayr waaye di woor bëccëg ba buñ ko fanaanee màggal ba set ñu woor bëccëg boobu yi bëccëgu juróom saxal ci itam ay awraat ak tudd yàlla jàng alxuraan taxaw temm ci jëf yu rafet deme ni saraxe digle lu baax ak lu bon ak yu dul yooyu ci xeeti yu baax yëpp lenn ci ahadis yi rot ci ngëneelil guddi googu day saxal ngëneel lu mu am gëne ko yeneen guddi yi ci biir weer wi yëpp ba lenn ci waroom xam-xam yi def guddi googu guddi ni su Saabaan ngëneel lu mag màgg loo xam ne na ko kaw yeneen guddi yi leen ñoom leen ñoom sax dañuy wax ne inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yufraxu kullu amrin hakim wax na ne lañ ci julu mooy guddi ni su Saabaan donte na wóote am na ci ñu bari nee nañu guddig laylatul xadr la waaye mbooloo ci borom xam-xam yi tam wax nañ ne guddig yi la ci jublu muy guddig nisfu Shaaban nga xam ne day mel ni guddig nisfu Shaaban kon ci la yàlla dogal li naara am ci jaam ji ci at mi ci top ci ko cee am wërsëg ak ko ko cee ñàkk musiba muy am ak ña muy am ak ña cee mucc di jiital la ko soob te yeexal ko soob ci mbiram ak i ndigalam lépp ci kàttan yàlla subhanahu wa taala ñu di ci guddi googu eh, lay am la ci lay sunu bon dogal li xew ci at mi bokk na ci ahadis yi nga xam ne tudd na ngëneel laylat nisfu saaban ci sant bu wér nga xam ne Muaaz ibn Jabal moo ko solo wax ne yàlla dafay yër dafay xool boolem bindeef ci guddi nisfu saaban bu leen xoolee yërëm yërëm ñëpp jéggal ñëpp des ñaar rek muy mushrik ak mushaahin muy kii bokkal yàlla ak ki tongoo ak mbokkum jullitam te te maa ñaar ñi tongoo te jubóoguñu ñooñu duñ ca bokk waaye yàlla dana jéggal ñëpp ba mu des ñooñu ak ki tongoo soo leen jël ci soxna ko yàlla gërëm umul muminin mu ne rasulullah dafa taxaw genn guddi nisfu Sha'ban naafila ba sujjoot yàgg ca sujjoot ba lool ba mujj ma jort ne kat mbaaru daa wàccub liggéey ci biir sujjoot bi ndax yàgg ga dama ba yaakaar lool ma daal di jug daal di yëngal baaraamu dee mu yëngatu ma xam kon loolu xëy ma delluwaat bi mu yëkkatee boppam ba ca sujjoot bi ba àggal ci julli gi nema ha isa wala ya ya ha isa wala ya humayra daana ko noonu yow ndaw su xees si ndax da jot ne yent bi dala dala dala sàggane mu ne ko dee wallaay ya rasulullah waaye damaa jortoon ne que da ngaa liggéey ndax ndax yàgg yàggaayu sujjóot bi mu ne ko xam nga guddi gi gumu mu ne ko allah alam yàlla yàlla ak bi rek ñoo ko xam mu ne ko lii mooy guddi nisfu Sha'ban yàlla da ci xool ay jaamam ci guddi gi ci Shaban jéggal ñi ciy jéggalu yàlla yërëm ñi ci sàkku yërmande seetaan nag ña nga xam ne dañoo xuloo mbaa ñu dàgg sante mbaa ñu jubóodi ko mu baleen ñoom ca ca leen fekk bokk ci ahadis yi itam bi nga xamee ne Ali ibn Abi Talib moo ko solo mu ne saa bu dikkee na taxaw guddee tawaru bëccëg ba ndax yàlla da ciy wàcc ba ci asamaan su mujj si féeteg àdduna ba ba so maanaam li tàmbale jant bu so lay tàmbal di wax naan ala mustaghfirun lii fa aghfira lah ala mustarziqun fa arzaqa ala mubtaliun fa aafiya ala kada ala kada xataa yatal xataa yatal yatal xataa yatlu alfajru xataa yatlu alfajru day wax ne moo ndax amul kuy jéggalu ma jéggal ko moo ndax amul kuy sàkku wërsëg ma wërsëgal ko moo ndax amul ku ne ci nattu ma jàmmal ko moo ndax nangam moo ndax nangam ba kero fajar di fenk bokk na ciit xadis bi abi umamata albahiliya solo wax ne salaa salaam na juróomi guddi yi am ne yàlla du ca delloo ak ñaan juróomi guddi yi yàlla du ca delloo ak ñaan ba ci njëkk mooy guddi gi njëkk ci weeru rajab su weeru rajab teroo guddi ga ci njëkk yàlla du ca delloo ak ñaan ba ko ñaari mooy guddi nisfu shaaban sunu borom du ci delloo ak ñaan ba ci topp mooy guddig ajjuma yàlla du ci delloo ak ñaan ba ci topp mooy laylatul fitr mooy guddig koor bu nee suba la koor yi guddi googu ba ko juróomi mooy guddig tabaski bu nee suba la tabaski guddi googu mais juróomi yi yàlla du ci delloo ak ñaan sopp na ne julli ñaari rakka ci nisfu Shaaban ci guddi gi ñaari rakka ci guddi googu moo gën jaamu yàlla ñeenti téeméeri at mooy kon mat naa fonk lool ci ay nawafil sopp nañ nekk ci julli fukki rakka ak ñaar jàng ci rakka bu nekk fatiha benn yoon qul huwallahu ahad fukki yoon ku ko def deex na ko faral ay ñaaw téefam ko ci ak dundam sopp nañ ci it ku ci jàng ñetti yaasin am na njariñ lool ñetti yaasin ci yéene yu wuute yaasin bu njëkk bi da ci yéene gudd fan boobu ñaareel bi mu yéene ci mucc ci balaa yi ak musiba yi bu ñetteel bi mu yéene ci yàlla defal ko xéwal gu bari ba soxlaal nit ñi dara su noppee na am na ñaan gum koy tëje maa ngi lay tegtal xurratul ayni bu sëriñ Suwaybu danga ca fekk am na ca wala mañ ma on nuurin ba Seexul Xadim yëpp julli gaak ñaan ga daje na ca kon ñi koy faat baax fàttali ñëpp ñu fonk ko te waajo ko te màgg ko yàlla suñu boom dimbale wala defal tawfiq xiir nu ci ak njub te saxaal nu ci te def nu dëgg-dëgg taalibe Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa nagul suñu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala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 الحمد لله الذي أوجب لبعض الأيام كرما وأسمى في الإسلام أوقاتا جعلها للمسلمين موسما نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأتقياء وأصحابه الرحماء الأقوياء أما بعد فيا عباد الله إن لله عليكم نعما فعظموها wa inna ataayaahu ladaykum jalilatun jasimatun fa ajilluuha wa akrimuuha wa inna mawaahibahu lwaafirata ladaykum ganimatun fabtabiruuha wagtanimuuha wa amma al azminata fi lfadaa'ili متفاوتة فصلوها بالصالحات واعمروها واجتهدوا في الأزمنة الفاضلة فوق المعتاد واكتسبوا من ذخائرها النفيسة ما ينفع يوم المعاد وقد علمتم فضيلة شهركم هذا بين الشهور وأنه تتشعب فيه الخيرات وتحط الأوزار وتتضاعف الأجور وقد استقبلتكم ليلة نصفه المخصوص بالفضل العظيم والرحمة الشاملة والخير الجليل الجسيم وهي الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم qaala alayhi salaatu wassalaam ida kaana leylatu nisfi min shaabaana faquumu laylaha wa suumu yowmaha wa fi riwaayatin man saama nisfa min shaabaana لم يمت قلبه يوم تموت القلوب جعلني الله وإياكم من المخلصين في العبادة الداخلين في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحمد لله الذي حرم بعض الليالي قدرا وأطلع لها في سماء الفضائل قهرا ونشر فيها أعلام نعمه نشرا وندب لعبادته البلاد الطرا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله ومصطفاه أرفع العالمين قدرا وأوضحها فخرا أما بعد فيا أيها الناس شمروا في شهركم هذا عن ساعد الجد والاجتهاد وتزودوا فيه ليوم المعاد واغتنموا أيام العمر قبل النفاد وحرموا من شعبان ما حرمه رب العباد وتعرضوا رحمكم الله لنفحات ربكم fa inna li rabbikum fi ayaami dahrikum la nafahaat wa tataharu min xabiihi kasbikum asaa an tasadu bi tilkumu rahamaat wa amru mawaasim alxayri bil ibaada wa laa tuqassiruha ala shahwati almuctaada فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها بالبلاء محفوفة وبالفناء معروف وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة فالكيس من لم يزل عن الدنيا مغربا wa ila llahi munqatia wa li kulli xislatin tuujibu lahu mahabbata mawlaahu musria jaalani llahu wa iyaakum min assaamiin almumtasilin wa gafara lana wa liwaalidina wa li jamii almuslimin yaxfiru llahu lana wa lakum amin allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaam hayya ala al-falaah qad qaamat as-salaat allahu akbar allahu akbar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 allahu akbar allahu akbar sami allahu liman